dans daal il faut nga comprendre que ni tamit il ne saurait manquer des velléités et des calculs politiques euh, jëm si li nga xam ne euh, xëy na amaana moo soxal déguerpissement yi. d' accord alors Cheikh Ousmane bu ma jógee ci taskatu xibaar bi yow en tant que chroniqueur kuy kuy jàngat itam actualité bi fi mu toll déjà euh, ma ñëw ci maa ngi wax forme fond bi tamit kii di Abdoulaye Mbow dugg na ci tuuti mais lan lan moo tax ah le premier ministre Ousmane Sonko mu daal di choisir ah dem fi nga xamante ne ni moom mooy ca Colobane que ce soit les habitants ou les commerçants di waxtaan ak ñoom naka nga koy mën a jàngate waaw xam nga li Colobane symbolise la hmm. boo bàyyee xel bi président bi premier ministre Ousmane Sonko di def visite mhm. nga xam ne mhm. ci site yi mhm. mu foofu ci Colobane. dafa lu Colobane di symboliser en fait kolobaan mun nga ne assemblée wu sénégalais yu bari bari bëri yu bàyyeekoo ci pàcc pàcc ci réew mi. ki dëkk Bawol dafay daje ki dëkk Saalum ki dëkk Fuuta ki dëkk Casamance ki dëkk dans le nord ki dëkk dans le Saalum fépp ci Sénégal pàcc yëpp dañuy daje Colobane kii ambulant kii yor magasin kii taaba taaba kii coxe pour ut lu mu am kuy rangu ñu ñëpp dañ fay def maanaam différentes su société bi mhm. fekk fa tam commerçant bu mun donc à travers Colobane te t'adresse nu mu tudd à la jeunesse sénégalaise mhm. mun nga ne te t'adresse à tous les ambulants jaaykat ambulant yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci catégorie bu ñu mënti bokk mm-hmm. boo taxee kolobaan wax nga ci ñëpp mm-hmm. rawatina nag li am kolobaan impacte mm-hmm. te xam nga booy wax base électorale Ousmane Sonko pàcc-pàcc yi ma la limal nii dañ cee représenter lu am am solo mooy doomi réew yi nga xam ne ñii bu heure vote jotee ñii dañuy ñibbi Saalum ñii dañuy ñibbi Bawol te gis nga élection yi passé ba nit ñi doon tooñ naan lii màggal ak lañ ko fi doon gis loolu c'est symbolique. donc ñooñu bu ñu leen tegee benn tiis. am ñu jaati suuf maquillé ko comme quoi état bi moo ko def. mu am ay réaction nit ñu doon mer man jot naa ci réaction yu bëri parce que am naa ci ay mbokk am naa ci ay soppe ñu déggante gars yi mer nañ. moo tax bi premier ministre defee poste bi dama ne heureusement. bi mu jëlee les choses en main. parce que dafa mel ni comme ni ko Mbow waxee dafa am ñu ci doon laxasu ngir couper lien boobu président du parti Pastef Ousmane ko doon wax naan à cette jeunesse je rappelle ce qui nous loolu lien kook jeunesse oo daf mel ni moom la gars yi bëggoon sujet yi ci suuf te gis nga gouvernement bi boo bëggee tënk leen ba réforme yi ñu bëgg def ci réew mi fexeel ba ñu manqué légitimité populaire ba pare maanaam fexeel ba seen li li dox ci connexion seen diggante ak population bi nga dagg d'accord boo ko daggee ñu isole bu ñu isolé lépp lu ñu defate représenté wul peuple bi. su boobaa yow mën nga contrer lépp lu ñu bëgg a def. d'accord moo tax il a bien réagi jël dossier bi en main leeral déjà ni ñoom déguerpissement bi du ñoom ñoo ko def et que moom bi mu ko yëgee yàggu. Mhm. loolu langage de vérité la dem waxtaan ak ñoom. d'accord waaw. c'est important euh, mhm. maa ngi ñëwaat nga gën maa yaatalal en attendant ma dem ci Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. déjà euh, lan laa mën a jàpp ne man wala kii seetaan. ni mooy enjeu politique yi boole caag sociaux yi nga xamante ne nii mën nañu ko tirer ci bi mu demee moom le président le premier ministre Ousmane Sonko ca Colobane dem ci Anse Bernard donc yëkkati fa discours lan laa mën a jàpp ne mooy enjeu politique yi ak sociaux yi nekk derrière ce discours. Euh, euh, bi moo amoon man mode de amoon mooy gouvernance boo xam ne souvent nit ñi dañ daan tëdd seen i bureau taal seen i climatiseur xamuñu effectivement la moo xew ci terrain mm-hmm. il ne recevait que des rapports mm-hmm. et les ñi ko daan bind mm-hmm. peut-être mën nañu am yeneen intention déggoon nga fi ay jamono am na fi président de la république bu wàcc boo xam ne bi mu wàccee lay soo a xam ne takku meew juróom lay jar. Mm-hmm. ñun nag bi ñu ñëwee dañoo indi beneen mode mm-hmm. de gouvernance mooy lan mooy gouvernance boo xam ne c'est par le peuple et pour le peuple mm-hmm. on se considère d'abord étant des dirigeants du peuple on se considère comme une partie intégrante du peuple moo tax du ñu bàyyi kenn di ñu nettalil suñu ay gént wala di ñu indil ay dossier di ñu ko nettalil moo tax saabu mbir amee dirigeant yi nga xam ne ñu ngi fi dañuy descendre su le terrain loolu mooy jàngat bi njëkk gisoon nañ fi question mbuurkat bi mu amee effectivement le président Diomaye dafa descendre sur le terrain problème bi aussi bi mu ñëwee le président Ousmane Sonko ci tweet bi dafa xam ne ni toog na gis dégg am na ay suspicion yu jóg le président yi woo ko ba mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga demal ma ci ñaari siti yi mooy Colobane boo fa jógee demal ma Anse Bernard ci discours le président Ousmane Sonko di ci dégg ne bi ko le président di wax loolu daf ko ne booy dem na la ñaar yóbbu mooy na nga déglu waaye boo dégloo ba pare na nga fexe ba ñu trouver des solutions collégial yoo xam ne dina mën a tax ñu mën a faj lii nga gis ci ne le 23 février 2023 le président Ousmane Sonko seen Ousmane mi ngi koy wax sànq dafa déplacé woon dem Colobane boobu amul nguur yorul nguur boobu ma ngay wut ñu tànc ko di ko xoxatal waaye tey bu demee ba yàlla jox ko nguur won na leen ni fa ma taxawoon démb fa laa taxawaat tey. mooy damay ñëwaat ci yéen ngir ñu mën a dégloon te saafonte discours bi li ma ci njëkk a dégg te boo ko doon conclure fenn nga koy nga koy nga koy xamee ndax démb suñu ndox mbàjjeen ni ndeysaan tàmbali woon nañ di génn ay circulaire di partagé mais tey dama gis le président Ousmane Sonko déggal boppam xam nga différence bi mu am ak ñeneen ñi mooy ñeneen ñi duñu assumé wu te ñun on a une politique qui s'assume mooy ñëw na wax ne bii fi amee interpellé ministère de l' intérieur mu xamal ma ne am na circulaire bu ñu def te ci loolu ñëw naa ngir waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñi nga xam ne aussi ñooy riverains yi ci discours le président Ousmane Sonko dafa établir les responsabilités dafa ne les responsabilités sont partagées mu ne ñi nga xam ne tey jii ñooy habitants yi fi ne bi ma leen dégloo déglu commerçant yi. déglu autorité territoriale bi mooy ki nga xam ne mooy préfet xam naa ne les responsabilités sont partagées li tax mu ne def ci am ñoo xam ne ay borom kër lañ bi ñuy tabax seen kër c'était pas à usage commercial d'habitation lañ ñoom ñoo dem ba finalement joxe li nga xam ne ñooy kër yi ñu def ko ay magasin magasin mu dem ba dérobé indi li nga xam ne moom mooy euh, usage commercial. deuxième point bi mu ne ñi nga xam ne ñooy euh, municipalité yi am nañ ci responsabilité ndax souvent aussi ñoom. dañuy ñëw bu ñu ñëwee effectivement dañuy joxe ay occupation publique yoo xam ne teguwul ci yoon waaye ñun état aussi am nañ ci responsabilité mooy occupation anarchique bi nga xam ne day am ñun ñoo ko war a saytu fexe boobu du mën a yegg fi mu yegg waaye aussi ñun day fekk duñu def loolu. ci loolu le président Ousmane Sonko terminé par par dire que ñun en tant que état duñu bàyyi situation bi nii. ndax kat dañoo seetlu ne ñi nga xam ne tey jii ñooy collectivités territoriales yi maanaam gouvernance municipale yi des fois dañuy mën ay activité ay action mais action yooyu duñ ci prévenir des mesures d'accompagnement mooy du ñu xool naka la ñuy recaser jeunes yi te jeunes yi boo leen recaser mën nañoo dem bay tàbbi ci mbiru géej gi di yéel mbëkk mi wala ou bien ñu dem def ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu agression waaye dafa ne nag ñun état foofu la wax bi ne dinañ ci jël suñu responsabilité xam nga li responsabilité te dee ndey ji seex mooy dinañu wax ak accompagner les collectivités territoriales ñi nga xam ne ñooy ñooy gestion municipale dinañu wax ak population bi dinañ wax ak commerçant yi ba ñun ëllëg si biir lépp loo xam ne tey jii municipalité yi bëgg nañ ko def ñu accompagner leen s'il y a lieu de trouver des sites de recasement ñu trouver leen ko waaye ñu fexe tamit ba li nga xam ni mooy financement yi nga xam ne moom la état di yor financement yooyu ñu orienté ko directement à ces marchands ambulants yi nga xam ne ils ont des projets entrepreneuriaux nga xam ne tey jii liñ doon financé muy jëm ci ñeneen nga xam ni voie politique la tey jii ñooñu mën a dugg ci ñi nga xam ne pratiquement ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy marchand ambulant yi ngir wax la ne maanaam wax na jëf na taxawee na taxawaay bu mat sëkk boo xam ne ñi nga xam ne démb ñi ngi doon génn ay circulaire liñ ci doon séntu tey amuñu ko jàpp nañ ni fiasco lañ ci am waaye le président Ousmane Sonko moom fam daan jaar jaarati na fa lam daan def defati na ko mooy fexe na ba jege askan wi wax ak askan wi askan wi dégg ko suivre ko ba lépp loo xam ne tey jii solution buy génn la solution boobu ñu am ko de façon collégiale. merci beaucoup Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Euh, naka ngay jàngatee taxawaayu premier ministre bi ak itam la mu yëkkati ci ay kàddu ndaxte fii Cheikh Ahmadou daanelee fu baax la mooy wàllu responsabilité yi mu